Demba Baldé. Demba Baldé champion lay doon kenn mënu dara. mbapat. cinq. amel li. amel li. ñaari yoon. waaw ñaari yoon. Papa Sarr. Papa Sarr. ñaari yoon. ñaari yoon. ak kii nii. ak kan. kii Ahmed Paka. Ahmed Paka ñaari yoon. waaw. ndeysaan ñaata drapeau nga jël. ñaar. ñaari drapeau. waaw lan nga gën a mën a si bëre lan nga gën a mën a. kal kal kas ma gën a mën a. kale nga jàpp kaleel ma ak waa ji kaleel ma ak waa ji ma xool. mooy kal mooy daal. ah. wéeru mooy kal wéeru. ndeysaan ndeysaan loolu nga gën a mën a. donc daal yow yaa ngi xaar combat. lan ngay wax tey seen seen sa fan yi ñi nga xam ne mooy Jacob Baldé. sama ndigal man la. sama na taxaw déglu ko rek. su ñëwul mu dem. cinq secondes la nga may su ñëw mu ñëw na nga may su ñëw mu ñëw. man. waaw Demba Baldé. Demba Baldé nan nga bokk ak famille Baldé Falaye Baldé. ah. nan nga bokk ak famille Falaye Baldé. Falaye sama maam la. sa maam la. ndeysaan. kan mooy sa papa. man Sil. Sil Baldé mooy sa papa. waaw ndeysaan. mais man nan lay ñaanal nga am carrière bu mag. tànk d' abord. Balla Gaye lay wax si Demba Baldé bi. kenn du moom. kenn du moom. mais nee na dawal la gën a